يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون الحمد لله رب العالمين mbokk jullit yi noo ngi màggal borom bi taala wa tabarak di ko gërëm di ko bàkk di ñaan borom bi jéggal ni suñuy njuumte ak suñuy rëcc-rëcc di julli tey selmal ci ar rasulu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko ñaanal jàmm moom ak i sahabaam ak taabiina lahu bi ihsaanin ila yawmi din mbokk jullit yi sunu xutba tey mi ngi tënku ci suu zann muy ñaaw njort yàlla ci yàlla musal mbokk jullit yi nanu xam ne ñaaw njort dafa bokk ci feebaru société bi waaye bokk ci feebari jamono ji nga xam ni ay résultats yu bon dafa daj sëkk bàyyiwul benn couche ci société bi ndax ay fitna lay indi fitna yi faat bakkan fitna yi dàqale ñaari àndandoo fitna yi dàqale jëkkër jabar fitna yi dàqale bàyyi ak doom fitna yi dàqale xarit ak xaritam yàq yi ñëw njort di yàq mbokk yi yàq bu rëy la lu mu xës ba yàq defaraat ko dootul yomb ndax seytaane moom mooy toog ci xolu bi ñaaw njort yàq ko waaye fas yéenee tamit ci xolu bi ñu ñaawal njort yàq ko te loolu nga xam ni mooy ñaaw njortu tegtal la buy wane ñàkk compréhension ci ki muy daal foo fekk buy mën a ñaaw rek dafa sàggane digganteem ak boromam ba seytaane am ci moom cër te seytaane bu amee ci nit ki cër day dem ba seytaane mooy dogal ci moom ndax la muy bàyyi ci xelam rek lay gëm feebar boobu di ñaaw ñoot yal na yàlla musal képp koo xam ni mi ngi ci yow nga xam ko ci sa gaawal nga daw jéem a faju ci feebar boobu ndax sayaatinul ins ñoom du ñu ko def mais sayaatinul jinn ñoo koy saxal ci yow su ko defee sayaan dañuy ñëw si ñoo leen di accompagner dafa bëri nag ay sabab bëri ay mefe bokk na ci sabab yi ñaaw jot mooy nit ki day naw boppam du nawloo keneen sellal boppam jàpp ni ci def duñu na ci sababi ñaaw njort ku mu dal da ngay sa morom sa xel rek moo lay doy dootoo doy lew keneen nga jàpp ni toujours li nga jàpp loolu rek muy dëkk li keneen jàpp du dëkk dootoo gis njuumte ci yow njuumte nit ñi ngay gis dootoo gis sell ak mbaax ci nit ñi waaye sa bopp rek ngay jàpp ni yow rek yaa mën su ko defee bokk na ci feebar yooyu su dalee nit ki day nekk ku gaaw a àtte problème bu ñëw rek mu teel koo jiite ci xelam te lu ko xelam jox loolu rek lay jàpp ni mooy dëgg dafay réyal gisiinam néewal gisiinu keneen réyal xam-xamam xeet xam-xamu keneen ndax day jàpp ni moom rek mooy sàmba ñi def ay ma sàmba lañ wala mu jàpp ni moom mooy demba ñi ci def ma demba dootul nawloo kenn te mbokk yu jullit warul mel noonu bokk na ci ay feeñ feeñ yi ñaaw njortu mooy gaaw a jam nit ñi di leen enquête di wax ci ñoom nit ki bu nekkee ku ñaaw yortu dootul xam ne jëw ndax day jàpp ni fit am na ko lii may wax fii bu teewee woo ko loolu lay àtte woo te jëw mooy zikru ka axaaka bi maa yakrax bi ñu laajee yonent bi lan mooy jëw sallallahu alayhi wa mu ne mooy nga waxal sa mbokk lu mu bëggut waaye yow jàpp nga ci seen jàmbaar ne lii ngay wax bu teewee nga ko wax loolu nag mooy indi tajribu naas moo xam ci borom xam-xam yi wala borom xaalis yi kenn dootoo ko nawloo waaye yow daal da ngay àtte nit ñi ne sax mën na laa yóbbu ci nga commencé jiite fan la ñu jëm diw àjjana la ñëw diw nitu àjjana la wala diw nangam diw nangam mbokk yi bokk na ci. musiba yi ñaaw njot day jëmbat noonoo ak mbañal loolu mooy dugg ci biiru sëy dana dem ba ñaari wujj dootuñu nawloo kenn mu nekk da ngay jàpp ne sa morom dafa ñëw ngir xañ na say àq dootoo gisal sa morom lu rafet dootoo ko jàppal lu rafet ban lu ñaaw ngay gis ci moom moo waral nga gis soo de wante bi moo waral nga gis nit dem bay liggéey wu jëm moo waral nga gis nit dem ba ñemee posone wu dana àgg foo xam ne ci nit ki dana dem ba nangoo rey doomi wu jëm yàlla ci yàlla benn ñettali bu doy nga gis ni borom xelam moo koy doy ndax seytaane mooy topp ci xolam fu mu jëm génn mu jàpp ne ci moom la nekk ñaar ñu toog di wax nga jàpp ne ci yow la ñuy wax loolu ñaaw njort moom moo koy dina indi shiqaaq baynal ixwaan ñaaw njort dina indi yàqoo ci diggante ay xaj mën naa ñëw ba ci néegu sëy mën naa daal jëkkër mu fiire jabaram mën naa xata jabaram ci njuumte naa daal jigéen mu fiir ba ñaan jëkkëram baat ci njuumte mën naa dal ci nit ñi ñoo xam ni balaa ñuy yëg ni ñaaw njort la woon fekk jëf ji passé na borom bi nag résumé ñu loolu lépp ngir wan ñu danger bi baada audu billahi min ashaytani rajim ya ayuha alladina amanu ijtanibu kathiran min addan inna ba'da addan ism borom bi ne ay yéen ñi ne gëm ngeen yàlla yéen ñi ne ay jullit ngeen yéen ñi ne yaakaar ngeen gëm bis yàlla nee na moo leen di communiquer ne leen ijtanibu kasiran min azann waay waay moytu leen njortu moytu leen lu bëri ci njort lan moo tax borom bi wax ñu njort li ci lekk mais inna baada zann ism lenn ci njort waxuma sax njort mais bàkkaar yi ndax léegi da nga te xamuloo sa xel da la xamuloo da yaakaar lu amul kon loolu nga yaakaar ne amul bàkkaar la li nga yaakaar bu amee bàkkaar la ndax amoo lu la leer moo tax borom bi ne inna baada zann ism lenn ci njort yi day bàkkaar la mbokk yi njort lu ñaaw yi muy su nekkee ci nit day nekk kuy xool njuumte nit ñi te tabu awraati naas xool nit ñi seeni njuumte li ñu mënti mënuñu ko su dee bu jàng la nga ne ak ah, tuuti la xam su dee borom xaalis nga ne ak ah, kii daamul dara di ko ëppale dootoo nangu nit ki am lenn dootul nekk faveur ci xam-xam dootul sax am mbaax buñ koy tàggal buñ nee diw bu baax la ah ci diw bay moom da ngay nekk koo xam ne léegi yow da nga bëgg topp ci ginnaaw nit ñi seen der mooy nga tabbu awraatu naas wal bahs ani dallat sëriñ bi yëpp mooy ngay xool fi nit ki juumee dootoo xool nit ki en tant que nit mu def lu baax yaa ngi seet fu juum rek nga jël njuumte loolu nga tax ko ko ba dootoo ko gisal dara lu baax wala yaa ngi moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne yaa ma'shara man aamana bi lisaanihi wa lam yadkhul al-iimaanu qalbuhu laa tazdaadu al-muslimiin wa laa tattabi'uu awraatahum fa innahu man tatabba'a awraatahum yatba'u Allahu awratahu wa man yatba'u Allahu awratahu yafdahu fii baytihi yonente bi ne ay yéen jullit ñi ay yéen ñi gëm yàlla ay yéen ñi ne Muhammad ngeen sopp waaye waaye yéen ñi ne gëm ngeen yàlla ci làmmiñ te duggul ci seeni xol te boo xoolee jullit ñi loolu ci ëpp ngëmul làmmiñ man jullit laa man salafi laa man ibaadu laa man murid laa man tiijaan laa man nangam laa loolu ngay woote woote fekk ci làmmiñ la yem parce que principe la nga gëm topp loo ko ndax li yeneen bi jàngale toppoo ko li yàlla jàngale toppoo ko soo toppoon li yàlla jàngale li yonent bi jàngale kon iman day dugg sa xol moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yéen ñi ne gëm ngeen yàlla ci làmmiñ te duggul ci seen xol kon mbir mi nekkul ci woote wa ak partisan waaye jëf la jëf boobu nag sa intérieur ngay jëf mu feeñ ci sa biti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne waayu waayu bu leen jëw du nit ñi imaginer nga toog di wax ci sa moromu jullit saa boo ko defee rek commencé ngaa xeeb sa jullit sa morom jullit nee na bu leen topp awray nit ñi di xool diw njaalookat la waaye diw màndekat la diw fen rek la mën diw diw diw wax dëgg diw fu mu dugg diw diw à chaque fois moo gisal diw lu baax yow léegi bëtu mbon rek ngay xool doo ko di moom bët bu baax wa aynu rida an kulli aybin kalila walakin ayna suxti tubdil masawiya borom xam-xam bi nee na bëtu ngëneel lu baax da ngay xool ci nit mais boo yoree bëtu lu bon dootoo gisee nit ki lu dul lu ñaaw yaa ngi yàkkamti ñu ne diw de dafa jëlee dara kii loolu diw de dafa dañ ko bett non xamoon naa ko yow sa problème yëpp mooy xamoon naa koy doon loolu du melokaanu jullit bu ragal yàlla yonent bi ne bu leen topp ay aw rek jàmm di ko génne bu leen topp secret jàmm di waxal dëgg dëgg dëgg dëgg wa aynuka in abdat ilayka maayiban bi qawmin fa qul yaa aynu linnaasi ansiru sa bët bu la wanee ci nit lu ñaaw neel sa bët pourtant li nga may wan ci nit ñi ñu ngi koy gis ci man te ni moom nar a xoolee mu bon noonu lañ koy xoolee kon kon wa linnaasi ansiru kon nit fexee ngay xool lu rafetlu doomu aadama lu ñaaw jarul nettali jarul gis jarul xool jarul jàpp jarul àtte yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ku bàyyiwul di génn ay secret jàmm ku bàyyiwul di génn ay ñaawteefu jàmm ku bàyyiwul di génn ay mbon-mbonu jàmm yàlla dana la topp génn sa ñaawteef génn sa mbon-mbon sa biir néeg nga xam ni ñépp lañ ciy yem moo tax waxkat ba doon wax ni tuubaa liman shagalahu aybuhu an uyubi nnaas nee na texe ñeent na jullit bi nga xamante ne day xeex ci ay ñaaw téefam di ko defar fàtte ko nit ñi temps bi nga nar a toog di wax diw nangam diw nangam diw jéem a la xoolee sa bopp nga corrigé sa bopp da nga fàtte ni nit ñi day gën a dox da nga fàtte ni nit ñi ci sa borom jàppale bi ngi ci yow moo tax moo joxoon sa baaraam ci lu bon arab ba noonu la bu tontu ida ashadta sababaka li qawmin bi soo joxoñee sa baaraam ne diw bon la nee na yow mi ngi ko wax bul ndax moom benn la joxoon ñetti bi rek nga joxoon xoola ñett bon la baaraam bi ne la yaa ko gën a bon bi ci a yées ba ci topp nag moo la gën kon yow benn nga joxoon ñetti joxoon leen moo tax fal binsaru bil xinsar kon yow mi ñuy wax lu ko jarul tontu gis nga lu bon jarul nekk di tontu du man man la yawit nangam déedéet adduna mooy attee bu gudd fan amee danañu xam kan moo nekk ci dëkk moo tax léeg-léeg nit dina ko yow li ñu wax ci yow lan moo tax doon tontu nee leen jaru ko tontoo ngi ñëw am na loo xamante ni jëf moo koy tontu mbokk yi gis nga ku ñaaw njort foo ko fekk ku manqué personnalité la ku am personnalité du ñaaw njort borom muru ah dafay am kersa di ñaaw njort ci ñëpp borom personnalité day gis doo ko wax mu gis doo ko àtte mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne iyyaakum wa zann fa inna zanna akdaba alhadis ay yéen jullit ñi moytu leen njortu njortu xalaat bu bon dong akdaba alhadis loolu njortu ci nit xamal ni du dëgg kenn du àtte yaakaaroon naa ko foogoon naa ko mënul àtte parce que amul lu leer mbokk jullit ñi ñaaw njortu ak ñàkk a leerlu xabaar bëri na bakkan yu mu rotal bëri na ñu mu raylu bëri na mu yàq seen dund te gis nga làmmiñ moom balu fetal ñooyam saa bu balu fetal génne ci gémmiñu fetal bi beneen la ñuy waxati kay waaye boobu la tuddee si waat kon sa làmmiñ boo waxee ci nit lu ñaaw ale ne la te waaye wax nga ko ba pare dootul effacé kon bokk xoolal li ngay wax ci sa moromu jullit ñaata kër la ñaaw ñortu tas nga fekk jigéen ñi ñaan ñibbi toog seen kër weer ñaari weer commencé rëccu ay man sama yëngoon waxoon nañ ma ko man de li ma yaakaaroon am fan lay mujj nga commencé topp ca la nga ñaanoon baat dana tax góor may jabar mbaat dem ay fan commencé jaar ci koñ la pourtant man dama juum de est-ce que man li ma yaakaaroon fekk déjà dafay déjà fait def nga loo xam ne am doog sa kati ma ngi koy def amal na nit la ko wax nit moo la ne sa soxna gis naa ko de daje naa moom fële gis naa ko ca sabar ba fekk naa ko ca baal ba romb naa ko su la nee gis naa ko ca sabar ba neel bi génn comme mbedd mi koñ bi dañuy sabar muy génn xam naa dañ ko seen rek foog ñu defal mais nekk ci sabar su la nee maa ko gis muy fecc lépp lu mu la mun di wax bul nangu bañal parce que daf lay yàqal te li mu lay yàqal du la ko defaraat gis gis ci nit lu ñaaw ci jabaru jàmbur wala jëkkëru jàmbur ragal yàlla mooy nga noppee ko loolu mooy ragal yàlla jigéen kenn du yàq dara waaye maa ko gis maa gis yëngu leen maa ko fekk grand théâtre maa gis mu ànd ak diw dèjà wax nga yàq nga te yow man te yam yàlla dana la taal jigéen jigéen kenn du ko weer ndax yaayu société la yaayu société kenn du ko toroxal kon mooy tur lu mel noonu te lii ngay wax mën nga koo wax bu pare mu dal ci yow amaan na li ngay am na ku ko gis ci sa jabar ndax wax na la ko am na ku ko gis ci sa jëkkër ndax wax na la ko képp ne sa xarit la di la waxal ci sa jëkkër lu bon sa xarit sa xarit bu gisee sa jëkkër di def lu ñaaw la koo war a noppee gis ko préféré sax moom waxtaan ak sa jëkkër ne ko diw ah, ah yow day diw sama xaalis ah lii baa doyul waa est sa jëkkër sacha la bandi la maa ko fekk nangam nangam moytul danay yàqal sa sëy te bu sa bopp taxee moom mi ngi dee wax kon góorgóorlu ci lu mel ñaaw yor ci moom moo jur jikko yu bon yu ñaaw yi ngay gis te mu yaatu lool xew ci société bi jikko yooyu bi ci jiitu mooy al ajalatu wa tasarru yàkkamti yàkkamti xabaar bu ñëw rek nga gaaw doo seet ndax dëgg la doo seet ndax du dëgg ki la sa doom la wala sa xarit la wala sa jabar la xabaar buñ la nettali balaa nga àtte laajal balaa nga àtte laajal di xamal loo kenn ñëw daje mu gis jiw gis na ko mu mag di lool nee ko man niwul naaj bee tàng yaa naaj bee tàng bu ko defee ëllëg dootu ñu di wax ci yow ah diw ah diw bu mës a bàyyi man bi yow yaa yàlla yow yaa xam ndax dana ko bàyyi wala du ko bàyyi yow yaa la ci xool nit ñi yow yaa dem di àgg diw dafa njaaloo diw dafa nangam ñaanal ko yàlla mu génn ci loolu ah sa xarit bi moo la wax kii li ma ko lu ma mës a wax dëgg la waaye lu mu la mës a wax dëgg la mais islam lu mu la mën di wax dëgg la teel ndax li mu la wax lii baaxul xool leen borom bi li muy defal jullit ñi formation ci suuratul mu'minuun lu mu wax lawlaa iz sami'tumuuhu danna al-mu'minuuna wal-mu'minaatu bi anfusihim xayran wa qaaluu haadaa ifkun mubiin lawlaa iz sami'tumuuhu wax ji mu ñëw waxal la ko sama borom njortul zanna al-mu'minuun yow mi di wax wax di nekkal jullit su dee góor su dee jigéen li nga njortul sa bopp ci lu baax njortul ko ki ñu ko waxal zanna al muminuuna da nga jàpp ne ku baax la jàppal ne kii la gën da ragal yàlla jàppal ne kii ñu la waxati moom moo la gën a ragal yàlla lu ñu la ku jóg wax diw nangam diw nangam diw nangam tey sa moromu jullit dañuy wax ci moom daal lañ ko dëgg wax su demee ba yëf yi leer nag daam gàcce tey di dal nit ñi ci Cheikh Imam Alioune Badara Ndao lu ko yi rajo yi mbël mbël guddi rajo yoo xamante ne Alioune Badara Ndao terroriste la rey wax. lu néew ci nit ñi ñoo ko bañ lu néew mooy asxaabul mu am ñoo taxaw ni ñu dëgg ñoo contre loolu na ba ay jàngkat ak borom xam-xam sax gëm lu mel noonu dem na ba no subhaanallah lan moo leen dee jëfee aaya bi aaya bi lan la ñu doon jàngal lawlaa iz sami'tumuuhu zanna al-mu'minuuna wal mu'minaat bi anfusihim xayran teewoon ngeen gis dëgg ngeen toog noppi noppi noppi ba ña ko waxaloon ñoom lañ la ko waxee eh, man te yaakaar ko woon nga foogoon naa ne noonu la demee de nit du àtte da ngay bañ loolu mooy sa rôle fekk yaa ngi ci loolu doo am bàkkaar jullit du sama doom moo ma wax nit ki boo ko xamee kenn warul di la waxal ci ginnaawam loo gëm weddil muy tuuti àtte ci portable moytu na woo naa ko nanguwumaa jël loo ci xam woo naa nanguwumaa wuyu est-ce xam nga bi nga koy woo ndax mu ngeen téléphone bi ñaareel bi woo nga ko wuyuwul ndax jàppal nga ko ngànt lan moo tee mu wuy la ñetteel bi lii machine la ñeenteel bi li nga ko woo nii te wuyuwu la ndax mënul na laa wuy ca waxtu woowa ndax li nga koy waxal du la dal yow dal na la diw woo naa ko wuyuwuma pare naa ci moom waaw diw téléphone naa ko faalewuma bàyyi naa ko seytaane moo koy def jullit du àttewul loolu whatsapp bi nangam nee nañu diwa def nangam facebook diwa def nangam diwa def nangam laa ilaha illa allah jullit du àttewoo loolu jullit du àttewoo noonu téléphone day fen whatsapp day fen facebook day fen jullit moo ko ëpp doole jullit kenn du ko waxal lu dul dëgg nga gëm ko soo woowee nit woowu la wala nga woo ko jëlu la jàppal ko ngant amal na ba koy woo téléphone bi nekkul ci ci moom amal na téléphone am watt ñaata nit ñaata nit wallahi la laa ilaaha xayru gis naa waa doo xamante ni rakkam bu koy liggéey la daw ba tax ko dóor ko woo la wuy la wuyu mu tàkk ci gees diw xew da nga dox wane ko mu ne mu xoolal man portable mu xool xool gisul dara mu lu mel noonu nga tëb tëb rek dóor nit ci parce que kilifa tëb wax nit parce que lu tax ma woo la wuyu mu yow yaay tàkk da nga xam ne téléphone am xam nga ndax mënoon na laaw est ce que ci oto la nekkoon. borom bi mu ne ko ndax mën na laaw lan moo tax doo ragal yàlla ci loolu ba attee ko lu mel noonu. jullit na moytu lu mel noonu. bind naa ko message tontuwuma ndax message boo bind war nañ ca tontu est ce que mu tontu la. ajit ndax gis na ko waaw gis na ko ndax gis naa téléphone bi wane ni liir na ko.

parce que àtte na ci man loo xam ne billaay xam dama reetaan ah ma wax la samay secret samay kii tontu woo ma te man ku ma xamal rek laa bañ yaa ngi nii xamal ma na te billaahi ladi laa ilaaha gayruhu ba mu defoo ba ko yow li ma ci dara billaahi xaw ma ci ma laaj yëguma ko daal. ibbi wax ay wax yoo xam ne da ngay rus soo ko dégloo yow da ngay rus nii nga ma def bu doon yonante bi du ma ko def nii nga ma def bu doon Abu Bakar du ma ko def ndax man dama la ci xam-xam nga waaw boo yaakaaree rek naw ko ci xam-xam mu tënk ko gàtt mu tënk ko gàtt moo rafet kon mbokk yi nit day moytu téléphone ci yàqkat yi la bokk borom bi na yaa in fatabayyanu bu xabaar ñëwee jóge ci du saay saay du ki la yoon ngay jàppee saay saay mais yow jàppal ni xabaar bi saay saay xam nga doom mu nekk saay saay waxuñu lu rafet ci moom kon jàppal ni wax ji waxu saay saay la bul jàpp ni ngeen mooy saay saay mais ku ñëw ne la Oumar Sall def na nangam wala bi mu def na nangam te loolu boo ko déggee du la neex jàppal ni xabaar bi saay saay la kon balaa ngaa wax fa borom bi ne la ca saate tabayyanu tabayyanu biir loolu balaa ngay def benn gaal balaa ngay def benn gisement biir soo ko deful li nga wax ba pare te gis nga boo waxee an tusibu qawman nga wax àtte wax lu bon wax lu ñaaw te ba nga koy def bi jahaala ci réew nga ko def ndax nit rek wala dañoo wax rek an tusibu qawman bi jahaala ba wax lu ñaaw dama foo mujj baal ma damaa ñëw fa tusbihu ala ma faaltum naadimin da ngay mujj rus soo gisatee borom da ngay am kersa nit daf lay moytu lu mel noonu mbokk yi sànq Sadio dañ doon wax ni laa taxuunna bi kalimatin xarajat min axiika al mumin illa xayra wa anta tajib lahu laam xam nee na lu ñu la waxal feeg yaa ngi am ngànt utalal borom ndax dégg xabaar jar naa tax nga tàgg sa siila la sa diggante sa bopp maa ko doon ma ko defal maa ko doon dundal jà jàpp nga génne ci kër jàpp nga génne jàkk jàpp nga dàq nit liggéey ci xabaar boo dégg amatu leer pare naa la dàq naa ko dagg naa sa salaire subhanallah mbokk yi nañ leen jàngaat xaadisatul ifk yaa Aïcha biñ ko waxalee dañ ko wax ba mu feeñ ci saxaaba yi bokkoon na ci Mistah ibn Asasa Mistah te Mistah ak yaayam Abu Bakr moo leen yoroon di leen dundal seen dépense quotidienne Abu Bakr moo ko yoroon di leen dundal mais bi xabaar bi ñëwee Abu dafa gis ni Mistah dafa bëgg yàq sëyu doomam Aïcha Abu Bakr ne pare naa dagg dépense bi mooy dagg li ko doon jox. léegi nag nit ñi boo boo leen meree rek da ngay dem man damay doon jàpp nag damay yéemu sax da ngay tabax jàkka mere nit ñi tëj jàkka ci te jàkka ji xamal nekkul jàkka yàlla da ngay di joxe dépense mere sa jabar téye dépense bi mere sa bi mere nangam mere nangam mere nangam pourquoi yi ngay kal kaay nga déglu li borom bi wax nee na wala ya'tali ulil fadli minkum was-sa'a an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah yàlla nee na yéen ñi am alal bu leen rëy rëy bu leen gàttal ñu kii def na lu neex ak nga téye sa xaalis yow da ngaa moom xaaj rek génne ko sa kër da nga ko mere rek toroxal néew doole na da nga ko mere def nga dagg ko yàlla nee bu leen def noonu nee na wala yaa ko yàlla nee na jéggale leen jéggale mooy li ñu lay wax ci nit ki nga dégg ko mel ni ko yëgu jéggale mooy yàlla nee na alaa tuhibbuuna bu la ko nga am joxoo yàlla la ko jox bu fekkee def lu bon nga def yow dootoo am kon nit da koy gëm wan ko nga neel ci tawe moo tax borom bi nee na alaa tuhibbuuna pourquoi nga mereel bi génne ko turam pourquoi nga mereel bi génne ko société pourquoi nga mereel ki ne par ci moom gerte jullit bu gerte du yore ci koy gerte kat borom personnalité bu gedd borom personnalité bu bëri xuloo borom personnalité bu du bëri joteeg nit ñi borom personnalité day moytu day day moytu da nga dem ba ñu yem la waaye ne ma wax ma tontu lu ma wax gën a mbaabe maa ko gën a xaje maa ko a bon gën a nangam jullit bi def te borom bi nee na wallahu gafurun rahim yàlla day jéggal mbokk yi moo tax Abu Bakr bi aay bi wàccee dafa dawal ñëw ci ne ko baal ma allahu akbar ñu ne saarabul biram abubakar daw ci mistax ne ko baal ma ak amul problème man maa juumoon ndax damaa meroon nag ndax li ngeen def sama loxo moo ma metti loolu mel noonu mais baalu naa yàlla jéggalu naa leen abubakar commencé di leen jox ba pare di saraxe bi tuub borom bi ne waaye te jannabuhal atqaa alladi yutti maalahu yatadakka donc ñooñu ñooy saxaabatul kiraam waaye dina xam ni su ma ko privé ci dépense dana dana dana dellu ginnaaw su ma ko privé ci nangam dana nangam déedéet mbokk yi moytul jullit day jiit jullit day moytu jamono bu nekk salamu saali nee na bu ñu la bu ñu la waxalee nit lu bon utal ko juróom-ñaar fukki ngàtt juróom-ñaar fukki ngàtt dee mu béwu na kon mbokk yi yonent bi sallallahu wa sallam ne man intazara ila axi muslim fa lam yaqbal kaana alayhi mislu xatiati saahibihi nee na képp ku sa morom ñëw ne la dama juum baal ma ak nga ko baalu ma la jéggal ma a juum nga ko jéggalu ma bi nee na yaa ngi yore bàkkaar bu mel ma fu ko xam ne lekk alal nit ñi ci tool noo toll bañ ne la baal ma nga ne doo baal yaa ngay kan kenn ñi lan lan kii day juum dafa juum dafa war a juum te ci juum lay dëkk ndax kullu bani aadama xata yow mi koy bañal yaa ko dàq juum loo ko bañal def ko lu ko ëpp xoolal loolu lan moo tax gedd bañ mer lii jikko ci moo ko yow a ànd moom moo ma ànd moom lañ ko moo ñaalee kon xayrul xataa'iina tawwaabuun juum na wax ci yow a ñëw yàlla dina baax juum na dellusi na dafa taaral jëm ci moom waaye nga toog fële mer di say affaire di ko jaay ni nii bis bu la yàlla defee loolu te nag moytul parce que yaa ngi attaqué yàlla nee na képp ku jël sa alal di ko privé nit ñi pour jaay leen nii laa toll attaqué nga yàlla geer yàlla yàlla digal ñu allahumma ahdina wa ihdina rabbil alamin اللهم يسر لنا كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم سر عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه